jafaram jabaram madame Ndiaye yal na yàlla defal jàmm defal ñu ko amiin jërëjëf hmm. xam nga nag euh, tey moom euh, Alaaji Abdoul Aziz Sy dafa nekkoon euh, koo xam ne du woon pour Tidiane du woon pour Murit du pour benn tarixa Sénégal gépp a ko bokkoon mu nekkoon koo xamante ni it jikkoom dafa rafetoon taxawaayam ci réew mi rafetoon ba tey jii mi ngi réglé ay problème te nekku fi dafa làqu rek moo di saa yu nu amee ay jafe-jafe tegaat Alaaji Abdu mu mel ni tey la loolu nag euh, noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala yal na wàcce bu baree baree bari yërmaande ci kawam te njaboot gi mu fi bàyyi yal na ci yàlla teg loxoom en tout cas moom li ko waroon def na ko mooy dund na ni mu war a dunde dund dund boo xam ni mënees na koo méngale ak alquran ak sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag euh, balaa ñuy dugg ci waxtaanu waalo wi ndax tey dañoo bëgg nag ndax xam naa ni moom it am nay bokk waalo ndax man dem naa ba gaaye ci néeg bi nga xamante ni fala alaaj euh, Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu ganee àdduna ca gaaya ñu tudde ko góor gu ñuy wax Malick Sow mi nga xam ni moo doon jàngal sëriñ Ousmane baayam téere bu ñuy wax Ixmiraar euh, moo sabab sax ñu jox ko soxna soxna Fawade Wele ba mu am ci góor googu nga xam ni wax dëgg yàlla kenn xamul dayoom muy Seydi Hadji Malick ak doomam ji nga xam ni li li waa ji doon wax rek ni alaaji Malick juru lu ko yées ndax doom ju mel ni alaaji Abdoul Aziz dëgg-dëgg nekk way juróom yombul kon nag ñu jox la nga sànni ay kàddu rek ci alaaji Abdou ñu soog a dugg nag ci waxtaan bi waaw jërëjëf euh, sama sëriñ nag ma ngi tudd Boubacar Maraba Tall mm-hmm. kooku mooy sunu wasila mm-hmm. di sal saliyu na mm-hmm. Sénégal xamuñu ko waaye ma dalal na maam alaaji Malick dalal na sëñ Touba. Mm-hmm. muy kër Cheikh Sidiye Baba. Baba waaw. Mm-hmm. mooy suñu xalifa général. Mm-hmm. si Cagara. Ah, kooku kooku bëggoon la muy xaritam. maa ngi ziar di ziar rakam Abdou Khadre Tall. sa Mauritanie. Eh, ndax gannaaw bu yàlla gent ba wóyee. ah yaakaar nañu yàlla yaakaar ko si lu sell. xamuñu gàmmu. Mm-hmm. lu dul bésu Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam xamuñu tëgg tabala. lu dul bésu Seydina Mohamed. Mm-hmm. mooy ziar rek la ñu xam ci suñu ziar yëpp yàlla nee na yonante bi nee na mm-hmm. alxuraan lay wax. kon ma ngi ko doon def si àjjuma ju mujj si weeru koor. waaye xëy na mbir mi Covid bi fi ñëw bi moo tax. moo tax waaw ñoo arrêté ko. doon xaritu sëñ Abdou Aziz si Malick ku ko bëggoon la. muy Baba Tall. waaw danaa ñëw nag si sëñ Abdou Aziz. sëñ Abdou Aziz man dama la bëgg a wax ne la saama maam ku jur sama baay. mu ngi tudd Amadou Naar Sall dëkk xënn maam Alaaji Malick mu bokk si moom ku ko jàngal mu nekk ñaari taalibeem mu jàngal ka ma ngi dale si maam Fanta Seck di sëriñ bu jóge woon ga mu dalal ka alxuraan mu jóge fi jaar fu ñuy wax njaago ñëw Tiwaawan mu mu xaddamal ko indi ko waalo moo fa jëkka lal malaanum wajifa Alioune Diop may mun na daf daan jóge gaaya di jël si adiya fu ñuy wax teen jawaar mu am doom taaw tudde ko sëñ Saybatu Fall bu mhm. gaaya mhm. mu tudde ko sama baay muy taaw muy Saybatu Sall mhm. amaa doom tudde ko sëñ Mansour Sall amaa doom tudde ko sëñ Aysatu Si mu maam Roqee Njaay wala maam Alaaji Malick kon macha allah kooku am nañu fa lu rëy si waam Abdou sama aaw baay Taalab Sall Taalab Sall ba nga xam ne bi mooy juróomeelu personnel bu liggéey Senelec si kees gaañu na daaw moo ko bàyyi sampaka sampaka tiwaawan ni doo fi jóg te lépp dana fi fekk tey kii muy soxnaam muy far sekk dëkk si kees dëkk a gaaye mm-hmm. jarbaatu sëñ Abdou Assis moom itam mu am doom tudde ko sëñ Mansour. Mm-hmm. am doom tudd ko sëñ Safia. Mm-hmm. am doom tudde ko sëñ Mansour. Mm-hmm. kon yaakaar naa man kër googu am na lam fa doon. am nga fa cër waaye zëlzël yu la waaye terewul danaa fonk. sama maam li mu jàppoon danaa ko fonk. ndax mu xaddamu maam Alaaji Maalik la. moo ne ko demal sa jant laal fa maraaj mu bëjj fa. ba mu ko am booba ceddo baa nga fi. boobu dañu xam rëbb. ak di napp. xamuñu luy luy lu mu tuddooti. xamuñu luy diine. dañ ko doon wax Amadou Naar. bu fajaree rek ngaa nekk di kasak. di kasak ah mu leen kasak bii di moo fi mujj si waalo li ngeen di wax kasak muy bu wusi boobu xamuñu ko fa mu ànd ak ma mbay xonde ak sañ àllaak sañ aatu fall bu gaaya ànd ak sañ mawlud wele maam alpha ak may mbay wadda sa gaaya ah sa Mauritanie Rosso Mauritanie ah yàlla def na nag kon danaa delluwaat sëñ Abdou. man suma xarit la woon. ndax man feeñoon ma si lu bari. dam daan tox. wala ah, alaaji kullu mawlud dan ma feeñu kullu mawlud dan ma feeñu ca rek ba ma bàyyee tux ci la ka ci laa jësatul ma wax ko sama papa mun ma yéen du leen taalibe mu xaddam ngeen ti tarixa bi yoon wi bëggul tox kon nga bàyyi ko. Mm-hmm. noonu laa ko tege si suuf bàyyi ko. kon sëñ Abdou Aziz. Mm-hmm. bu dee si wàllu développement. Mm-hmm. bu dee si wàllu diine. bu dee si wàllu politique. kenn ku njëkk gis na nu mu fi taxee woon. sëñ Abdou Aziz kenn du attaqué l'islam. wala sëñ Abdou Aziz kenn du attaqué nit ka nga xam ne ki niiw nga doole. sëñ Abdou Aziz du kenn du attaqué nga xam ne ki même bokkalul moom diine. kooku yal nañu ko yàlla fayal. amiin amiin yal yàlla may référence am. ba nga xam ne bi ëllëg daanu am royekaayam ndax Sénégal kat. ah daañu roy. waaye dégg lu yàlla may dégg lu ñu wax na koy topp mm-hmm. ndaxte ëllëg mooy suñu njariñ xasaayit yi neex na mm-hmm. waaye ndax daan ko dégg waaw way yi neex na ndax daan ko dégg mm-hmm. col gi neex na berneel gi neex na ndax daan leen dégg si sëñ Touba di kër maam Alaaji Maal di kër Touba di ñenn ñëpp dégg bi day néew na yàlla na ko yàlla may amiin yaa rabbal aalamiin waaw kay kon nag ñu jàll ci waxtaanee waalo waaw léegi su ma la laajoon fan mooy réew mu ñuy wax waalo loo may tontu waaw fu mu la laajoo la wax fa nga xam ni fa lay juddoo muy càggar Ah, sama bàyyi dëkk xënn ma bokk si ah, xeet ba ñoo wax teejeej benn côté bi bokk si ay loggar ñu sant ñi jaw ah ñu sant ñi mbóoj nag ñoo leen jur ñu bokk ci ñi nga xam yaag terment ku mës a ñëw càggar foofu ngay dal ñoo fondé càggar càggar ndaxte càggar eh, ñi leen fonde muy sargaan mbay moo fa jëkk a wàcc di séeréer jur fa ku ñoo wax sakkeer yi hmm. sakkeer yi moomu nag moom meññ samay waajur hmm. bay ñoom ñoo fa nekk jaraaf barag bu fa mës taxaw hmm. ñoom ñoo laa fal ak ñu sant ñi jàkk waaloo nag boo ko déggee mooy place ba nga xam ni bii place u ndox la dañ daan bay dugub di bay tagg moo doon seen ressource ba nga xam ne économiquement moom si li ñu doon dund tagg bi daf daan bare bare ba nga xam ni bii kuy tagg koy takk koy ñaani sëy ak li ñuy def si liñ ko doon dundee mu ay basañ ñu ko doon jaay si mel na réew ma nga xam ne ndakaaru amoon nañu ay commerçant yi nga xam ne dañu ko doon ñëw di ko jënd di ko yóbbu di ko indi Dakar di ko lebale pendant trois mois bu jotee ñu dellu dem sa tool yi doon nañu bay lu ñoo wax euh, euh, mbayu traditionnel ba nga xam ne bii amul engrais amul dara muy dugub muy pataas bare jën tagg boobu ñu ko doon jënd di ko jaay di ko yeb si ay gaal di ko yóbbu ndar di ko yóbbu funne ñeneen ñëween jóge Mauritanie di ko jënd amoon nañu benn garab ba ñu fuddën fuddan boobu bokkoon na la nga xam si économie waalo la bokk ndaxte danaa di dégg ñoo wax naa ne mbënd waalo di danaan mbënd danaa dégg Ndakaar ñoo wax mbënd mbënd yal na si yàlla musal waalo mooy dëkk ba nga xam ne bi dëkku wala la dëkku mbënd la ndox la buy jog waaye taw du indi mbënd mbënd yelluñ si yàlla mbënd kooku walla la mm-hmm. moo tax ñu tudd wa waalo mm-hmm. mooy ma ngi sosoo si wàllu ndox mm-hmm. kooku alaaji taal ngoon ngoon loolu mooy waalo léegi nag bu ñu demee bi si ay jamono nag ah jamono di soppeeku ba ñu indi yeneen mbay ah léegi nag euh, loolu nga ma doon laaj si waalo bu fekkee ne ma continuer wala du ma continuer ma am leen la ma maa laaj noonu la waalo man kay euh, organisation bi amoon ci waalo dem xam nga dañuy